ويسأل في الحوادث الحمد لله رب العالمين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 ma tibbee ko ci sama xol eh, jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi di ñaan li nuyoo bi làmboo yal na yàlla dëgg ci làmbale ci seeni mbir làmbale ci suñuy mbir làmbal ci mbiri mbooleem jullit ñi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi yàlla xam na nañ fa nekkee moom ma leen fa nekkal di ñaan ñi nuyoo bi fekk ci jàmm fekk leen ci teraanga fekk leen ci xéewal ak ci wërsëg ak ci wér yàlla na yokk te yàlla ci mbaaxam tamit mu saxal ko ñi mu fekk ci safaan ba moo xam nattu gu leen mun di dal yal na yàlla teggi nattu ga jeexal ko tàkk delloo leen ci jàmm ju lëw ju yaatu jooje nga xam ne ñépp xaj nañ ci yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ba ñu mujj mucc ba ñu bokk mucc ci li ñu tuddee ak jaamaarloo yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na yàlla boole eh, defal ñu ko ci barkeeb sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama eh, may ñëw nag di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci waxtaan yi passé ma junjaloon la ko ci wàllu nit mi nga xam ne yàlla dafa pare ngir defaral ko waaye parewut ngir defaroo ko ba ne maa uridu minhu min rizqin wa maa uridu an yut'imuni lu tax mu ne inna allaha huwa razaqu dul quwwatil matin yàlla moomu nag bi mu paree ngir defaral nit ki waaye parewut ngir defaroo ko mu yëg ne nit ki nag li ko mën a defaral li ko mën a defar benn buntu dong la muy lislaam ba tax na nag yàlla jaarale ko ca buntu booba rëdd yoon wa teg ko ci looloo tax nag mu jaar ak nit fa mu jaar ak nit ci ci aju yoo xame na nii lu jara bàyyi xel la moo tax ku jug ne dafa laa bëgg a defaral te jaareewut ko ci lislaam bul sonn kooka dafa pare ngir defaroo rekk waaye ki mën a defar nit ki mooy yàlla fi mu rëdd ne fa la nit ki defar ko ci seen rek la muy islaam moo tax nag yàlla yëkkati ay àq ndeysaanam di ko jox nit ki te fekk na maanaam nit ki sax booba juddoogul fàggul ko loo xam ne mënul ko boppam te fàggu yooya bokkoon na ca tànnal ko ay waajur ci wàllu waajur wu góor ak wu jigéen loola kenn mun koo tànnal sa bopp bam la ko tànnalee tamit mu tànnal la wan yoon la ñuy jaar ba boole leen ñoom ñaar ñooña alquran ñëw di ko jàngale yonentu bi ñëw farañ fànce ko sallallahu alayhi wa yooyu yëpp mu ñëw jàngale ko nga juum maanaam ñi takk sëy ba téere bi yàlla takk ko yonentu bi yàlla jàngale ko yonentu bi ñëw jàngal la vaccination ya ci baat yan ngay war a jàng door a mën a wéet ak sa soxna soxna soo fa gannaaw bi wéet amee ëmb ba màndargaw jigéen ngi wannu lor mu lay wax loo koy jàngal yépp di ko yéene xale bi nga xam ne moo nekk ci biir mu juddu xale bi mënul dara mun la tànnal ko tur bu baax dana jeexital yooya ñëw noddu taxaw liqaam taxaw dàq seytaane taxaw nga continuer timit ca noona yaag moom ci àqi xale bi gannaaw ko tànnal ko turak rendil ko gàttak di ko teeteeg ba mu am juróom-ñaari at nga digal ko julleeg jàngal ko téere bi yàlla beek ba ba muy masooree nga jox ko liggéeya boppam bu mën a yore boppam fekk tàngatoon nga ko ca ak naka lay mën a jaaree ba mën a am soxna moom tamit liñ ko defal mu mën koo defal ay doomam yooyu yëpp nag bu bu amee kenn ku nekk defal ko sa doom su boobaa société bi dana jàkk li ñuy bëgg tamit di ko dàkk ñun ñëpp danañ ko mën a jam kon lii lislaam dong dong moo ko mënal nit ki waaye amul lenn lu ko ko mën a mënal lu dul lislaam kon lislaam moomu lu jara bàyyi xel la lislaam moomu lu jara toppatoo la lislaam moomu lu jara topp la looloo waral lislaam ci boppam bi muy ñëw mu tànnal nit ki limala waxoon noonu muy soxna takk soxna nag ci sariya islaamiya dafa am ay xaaj dafa am ci xaaj yoo xam ne takk soxna ci boppam farata ci ñoom bu ñu amul soxna dañuy am bàkkaar am ci nit ñi ñoo xam ne takk soxna dafa xaraam ci ñoom ñoom daal nañuy takkalaate wala ñuy gunge koy takki waaye bis bu ñu amee jabaraam nañ bàkkaar am ci ñoo xam ne takk soxna dafa nekk lu ñu sopp lu ñu sopp nag fu ñu ko waxee ci ulama wu usul mooy loo xam ne boo ko defee ñu bindal la yool waaye soo ko bàyyi woon tamit doo ci am benn bàkkaar am ci ñoo xam ne takk soxna maanaam dañ ko sit buñ ko bàyyi woon rek am ca yool waaye buñ ko defee tamit duñ ci am bàkkaar am ci ñoo xam ne nag takk soxna ci boppam maanaam dafa nekk loo xam ne dafa dagan ci ñoom lu dagan nag fu ñu ko waxee mooy lu làmboo ñaari anam nga xam ne def ga ak bàyyi ga ñooyam àtte yooyu maanaam ci la takk soxna di seddandiku su boobaa nag yow mi may déglu yaay man a xam juróom ñii mën na ma tudd yow kan nga ci ndax balil insaanu ala nafsihi basira nit ku nekk moo gën a xam boppam waaye man mi koy wax nag du ma mën a xam yow ci nga bokkam bokkoo ci waaye yow ci sa bopp nag yaay mën a taxaw fëgg sa dënn su ma farañ pàncee juróom ñi nga mën a taxaw ne man mii nag ci ñii laa bokk boo bokkee ki ñi xaraamoon waruñoo takk soxna takk soxna nga taxaw ne mankat kat ndeke def naa erreur bu mag a mag dama waroon a takkalaate rek wala ma gunge kuy takk waaye waruma woon a takk soo bokkee ci ñi nga xam ne dañoo war a takk soxna farata la ci ñoom te amuloo soxna nga ne man maa ngi ci bàkkaar bu rëy rëy nuur ci yàlla bu ma ci dee ndax bu ma ci dee xaw ma fu ma jëm nga gaaw góor góorlu nag fexe ba wuti soxna soo bokkee ci ñu ñu sib nga mën a àtte sa bopp soo bokkee ci ñi nga xam ne tamit walillahi alhamdu wa sukuru dañ koo sopp nga mën a xam tamit pan ngay eh, taxawee kon boo ma dégloo ma farañ pànceel la juróom yooyu yow mi may déglu na nga mën a fëgg sa dënn wane ne man ci ñi laa bokk xaaj bu njëkk bi nga xam ne takk soxna farata ci ñoom mooy bépp góor goo xam ne yàlla may na la lu ñu tuddee baaxatu mooy man ngaa dëkkal man ngaa dëkkoo bu feebaree man ngaa faj te nag boo takkul soxna mënuloo téye sa bopp wóor na ne boo takkut soxna danga nga mooy ak jigéen ñoo takkut ñi te lii ngay takk yaakaar nga ca doom wala yaakaaruloo ko sax yow daal takk soxna farata la ci yow ngir nga mën a fegu ndax nag lislaam diine la joo xam ne dafay xiirtal nit ñi ci fegu kon kooku mooy koo xam ne takk soxna farata la ci moom kooku la yonent bi doon junj ne yaa machara shabaab man istataa minkum albaata falyatazawaj fa innahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarji fa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaaun yonent bi ne yee yéen sama waxambaane yow xeet wi képp koo xam ne yàlla dogal naa mu mën a dëkkal mën a dëkkoo mën a woddu bu feebaree mu faj te wóor na ko ne bu takkut dana moy demal nga takki soxna ndax kat mooy tax sa bët bi mën a gëmm ci xool lu mu warutoon xool waaye mooy tax tamit sa awra gën a ñoŋewu ba du moy soo demee nag yi yépp dajee ci yow man ngaa dëkkoo waaye nag mënoo dëkkal mënoo wodd mënoo faj mu ne kon demal nga taxoo koor ndax loolu day tàpp bànneex kon xaaj bu njëkk bàngoog nga xam ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na leen nga xam ne takk soxna farat la ci ñoom ñaareelu xaaj bi mooy koo xam ne takk soxna dafa xaraam ci moom mooy koo xam ne ñaari xaaj la mën ta dëkkal mën a dëkkoo mën ta dëkkoo feebaree du faj walillahi alhamdu wa sukuru bu raflee du waddu kooka muy takk soxna di ko lor di ko lor ke ñàkk dëkkoo ga di ko lor ke ñàkk dëkkal ga di ko lor ke ñàkk faj ga di ko lor ke ñàkk waddu ga ko kooka boo lëgee lu mu am ci topp yàlla bu taxawee ci kanam yàlla dana ko fayee àq àq ya ca soxna ya su boobaa kon day dugg ci atadruuna mal la ndax xam ngeen ku ñu sisir saxaba yu ne ko déeréet mu ne ko ñu sisir mooy koo xam ne indi na wu yiw wu ko war a mën a yóbbu aljana waaye saaga na kii xas na kii lekk na xal lu jàmbur yore na àq kii soo lëggee nag ñu jël aw yiwam fayee ko ba mu jeex bu jeexee te yooyee jeexut ñu jël lu boni gaa yi këppal ko ko yow nag boo fi nekkee takk soxna dëkkoo dëkkaloo wodduloo fajuloo wala dëkkoo dong nga man waaye mënoo dëkkal mënoo wodd mënoo faj su boobaa nag bu yowmal xiyaamee dana waral seen sa soxna sa rekk daw al ak dépense ya aqi ordonnance ya aqi koddaay ya su boobaa nag bu ñu jëlee sa lu baax li fayee ko ko su jeexee te jeexaluloo ñu jël lu bonoom la këppal la ko dem safara dalay yomb kon kuy dajeewut ci yow yonentu bi nee na taqoowal koor mooy genn wàllu xadis bi fa man lam yastati fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaawun mu ne kon demal nga taqoo koor xam naa du ñàkk ñu bari ñu may déglu danañ am ñu ne ah man de booboy tuut sama waa gi ki ñooña la bokk man mii de sama waa ji ordonnance yi man de sama waa ji dépense bi man de sama waa ji koddaay gi man de sama waa ji àqi dëkkal gi dëkkoo gi demeet yooye moom du mën a du jeex waaye ña may déglu di dund loola ñoo ko mën a xam waaye man mii duma ko xam ndax nit ku ne moo gën a xam boppam ñetteelu xaaj bi nag mooy koo xam ne takk soxna moom ci boppam sopp nañ ko moo yàlla dogal na mën naa mën naa dëkkal mën naa dëkkoo bu feebaree dana faj bu raflee dana wodd te lii muy takk yaakaar na ci doom te wóor na ko ne bu takkutoon soxna tamit du mooy mukk digniteem xamal na ko ne du moy mënu ko kooka nag takk soxna sopp nañ ko ci moom ndax mu bokk ca ñay yokk xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama mi daan wax ne tasawajul waduudal waluud fa inni mukaasirun bikumul umama yawmal qiyaama takk leen jigéen goo xam ne ku bëri cofeel la ci yéen takk leen jigéen goo xam ne yaakaar ngeen ci moom am doom xam ngeen ko ci wàllu meenam ak ci wàllu gañoom ndax man bu yowmal qiyaamee damay puukare wanteeg yeneen yonantu yi ci xeet yu bari tax lislaam diine xeet wu bari la danaa ñëw ci wàllu planning familial ak nañ koy waxee ak ni yonantu bi bëggee bari ak bari lool nekk mbuubit na xame tekki woo dara bari bari gi am na waaye tekki nekkut fa maanaam daal lu ñuy wax ne quantité mi ngi fi waaye qualité amu fi wala maanaam qualité bu ànd ak quantité yooyu yëpp bu ñëwee ci àtte booba danañu ca wax waaye lu ci mun di am daal koo xam ne boo takkutoon doom mooy te li ngay takk yaakaar nga ci doom te boo takkee du lay du boo takkutoon doom mooy te boo takkee li ngay takk yaakaar nga ci doom te du teree mën ngaa dëkkal mën a dëkkoo mën a woddu mën a faj su boobaa bëgg nañ nga takk ngir yokk xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi doon wax ne tazawajul waduudal waluut fa inni mukaafirun bikumul umama yowmal qiyaama ñaareel bi nag muy ñeent ñeenteel bi koo xam ne dañ koo sib mi ngi takk de te moom bu takkutoon timit du mooy te bu takkee yaakaarut ca doon ca la muy takk te bu takkee dana mënta mukki ci ameel soxna sa ay xaq moo xam xaqi dëkkal la xaqi dëkkoo la xaqi faj laak aqi maanaam koddaay la wala sax dana ko yàqal lenn ci ay jaamu yàlla lu mel ni jàngal walla wala naafila guddeeg wala koor ak yeneen yu ca aju ci kooru gàtta ngaya kooka daal sib ci moom mu takk soxna ba tax na daal bu bàyyi woon moom mooy gën waaye bu takkee timit nag kenn du ko ca bindal bàkkaar kon wax naa la ñeent ñi mu des juróomeel bi ki mu dagan ki mu daggan daal mooy koo xam ne mën naa dëkkal mën a woddu mën a faj waaye nag mënta dëkkoo mu dem uti koo xam ne tamit bañut maanaam bu dëkkoo wut ak góor tamit du ko lor ma mi ngi mel daal mu ngi nekk kuñ mënta dëkkoo waaye bëgg na daal moom fu mën a nekk rek mën a suturaal boppam bañ xam ne am na soxna moom tamit kële bëgg naa suturaal boppam bañ xam ne am na jëkkër waaye terewut nag yàlla nga koy dimbale ci seen ànd googa ma ngi koy dimbale ci lañ dëppoo ca loola ca wàllu dëkk dëkkal gaag euh, waddu gaag faj gaag la ci aju waaye ñoom wóor leen ne ñoom ñaar ñii ñëpp buñ takkutoon buñ àndutoon tamit duñ mooy ndax yàlla dogal na mënuñoo ànd waaye lii dañ caa jublu suturaal seen bopp su boobaa loola dagan na ci ñoom ñaar ñi àndale leen kenn ku ci nekk suturaal sa bopp ñuy ànd kenn ku nekk foog na ñaga ca dara te fekk na maanaam dara lekkut fa loola mooy lu dagan buñ ko bàyyi woon tamit dara newu ca buñ ko defee tamit dara newu ca wala baaxul lañu wax lu dagan mooy loo xam ne def ga ak bàyyi ga ñoom ñaar ñëpp maanaam ñoo su ko defee kon nag juróom ñaangoog yow mi may déglu yaa xam nag juróom ñii kan nga ci waaye boo bokkee ñi nga xam ne dañoo war a takki takk jabar nekk farata ki ñoom demal nga takki li ko may nga am bàkkaar soo bokkee ñi nga xam ne takk soxna ci boppam dañ koo sopp ci ñoom demal nga takki nga yokk xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee da ngaa bokk si ñi nga xam ne takk soxna dañ koo sib ci ñoom ba tey demal nga takki su bokkee si ñi nga xam ne tamit takk soxna dafa dagan ci ñoom su boobaa tamit demal nga takki su fekkee nag da ngaa bokk si ñi nga xam ne takk soxna dafa xaraam ci ñoom nag demal nga muñ taxoo koor tey ñaan yàlla nangoo liggéey ba yàlla ubbi bunt yi nga xam ne soo yoree soxna da nga ko mën a yore ndax soxna tamit nag kenn du ko yoree ci loxoy neen waaye nag juróom ñii koo ca doon rek yow yaa koy xam nga mën a dem nag seeti kan nga ci ndax nga mën a dem taxawee ji loola ban nga ci ndax kat euh, juróom ñii nag Euh, ci saxaba yi su la ko doon farañ fànteel damay wax na ñi nga xam ne takk soxna dafa waroon ci ñoom nekk farata buñ ko defura dañuy am bàkkaar ñooña ibnu abbas ca la bokkoon ba dafa daan wax ne indi la axtaaju ila nisaayi kama axtaaju ila taami wa sharaabi man daal danay xaajoo jëm ci soxna yi comme ni ma xaajoo jëm ci lekk yi ak ci naan yi comme mën na dëkkal mën a dëkkoo mën a faj mën a wodd looloo waraloon moom Ibnu Abbas mu takkoon ay soxna ñaareel bi ñi nga xam ne dañ koo soxla Omar ibnul Xataab ci la bokkoon dafa daan wax ne man mii de sama dignité xamee naa ci du ma mooy mukk xelaatuma ko ak jigéen goo xam ne takkuma ko su ma takkutoon soxna sax de du ma mooy mu ñu ne ko nag kon sa soxna yi ngay takk loo jublu mu ne bëgg a dëggal rek la yonantu bi ne woon tazawajul wadudal walud fa inni mukaafirun bikumul umama yowmal qiyaama waaye su ma takkutoon tamit nag duma mooy mukk loolu xam naa ko ci sama bopp ak ci sama dignité ak ci sama fulla su ko defee kon nag soo bokkee ca ñeent ña demal nga takki soo bokkee ca juróomeel ba demal nga muñ di ñaan yàlla ba yàlla ubbi bunt ya wala yastaafifi lasina laa yasunu nikaan xataa yuxniyahumullahu min fadlihi yow ca booba ngay bokk ñi nga xam ne daal seen loxo jotul seen gannaaw bu ñu takkee soxna duñ ko mën a dëkkal duñu mën a woddu duñu mën a faj way duñu la ya ci aju duñ ko mën a taxawee dëkkoo dong lañ man su boobaa maanaam yàlla ne nañ góorgóorlu ci fegu bokk na lii dimbal nit nag ci fegu takkoo woor di ñaan ba yàlla ubbi euh, bunt ya nga door di mën a dem di takk takk nag baax na ndax mooy tax nga am looy tekki ci xeet wi waaye bu fekkee ne tey góor nga nii mat a takk soxna te takkuloo sarfañ nga bokk ci ñeent ñi kenn kon daal kenn xamul looy tekki rek ci xeet wi xanaa ñu tuddee la rek góor gu rafle rafle piir daal maanaam mooy ñàkk soxna moo tax daal bu ñuy wax rafle nekkul ñàkk yére rafle nekkul ñàkk oto rafle nekkul ñàkk xaalis waaye nag rafle piir mooy maanaam ñàkk soxna lu koy waral mooy alquran a ko dëggal dafa wan ne soxna yi koddaay lañ moo tax ku la ci ëppale moo la ëpp koddaay ki am ñaar am na ay ñaari koddaay ki am ñett noonu ki am ñeent ku la ci ëppale rek moo la ëppi koddaay waaye nag boo demee ba amoo ca kenn amoo ca benn amoo ah, amoo benn soxna mooy tekki ne kon yow am ko benn koddaay ku amul benn koddaay nag mooy ku rafle moo tax alquran ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun na kon rafle góor mooy ñàkk soxna waaye rafle jigéen dëgg-dëgg mooy tamit maanaam ñàkk euh, jëkkër ñaareel bi tamit euh, soxna yi ñàkk leen mooy ñàkk maanaam mooy ñàkk tool lislaam dafa wane ne soxna yi ñooy tool yi su boobaa na li muy teg kon képp koo xam ne amoo fooy xëy dëgg-dëgg ñàkkam xëy daal dañoo bëgg gouvernement bi utal ñun liggéey ak nangam nangam ñàkk xëy piir daal mooy ñàkk soxna ndax boo ko xasee ñàkk rek amatuloo tool yooyu war a xëy ndax alxuraan dafa ne woon soxna yi seeni tool lañ maanaam nisaaukum xarsun lakum faatu xarsakumu annee shi'tum kon daal boo ñàkkee soxna te mat koo mën a am man ko bokk ca ñeent ña li muy tekki mooy amatuloo xëy ñaareel bi tamit rafle nga amatuloo koddaay yow soxna si may dégg tamit nag yow tamit boo ñàkkee jëkkër mat koo am walilahi alhamdu wa sukuru su boobaa tamit ñàkk nga am xëy piir waaye tamit ñàkk nga koddaay waaye lii tamit ma waxoon ni mu valable ci góor ñi ca juróomi attaya ni la valable tamit ca eh, jigéen ña am na ci jigéen ñi jigéen ñoo xam ne am jëkkër dafa xaram ci ñoom ñoom daal nañu fekkee fu ñuy takkalee rek waaye ñoom bu ñu leen takkee dañuy am bàkkaar am ci ñoo xam ne am jëkkër farata la ci ñoom bu ñu amul jëkkër dañuy am bàkkaar am ci ñoo xam ne dañ koo sopp am ci ñoo xam ne dañ koo sib am ci ñoo xam ne dañ dafa dagan ci ñoom bépp jigéen goo xam ne maanaam yow sa bopp boo amutoon jëkkër timit doo yàlla mukk xam nga ko ci sa bopp te boo demee sëy parewoo ngir matal àq jëkkër ja ca juróom-ñaari sarta ya yooyu yëpp bàyyiwuloo xel matal ca dara wala sax eh, maanaam bàyyiwuloo ko xel kooka nag moom am jëkkër dafay xaram ci yow ndax su boobaa boo amee jëkkër lépp loo am ci jaamu yàlla bu yowmal xiyaamee bu ngeen dajee ca péncam ma bu la fayee koo àq ya da mujj jeexal bu yooya jeexee te jeexul ñu këpp la lu bonam nga dem safara moo tax benn jigéen amoon na génn góor gu ko mos a bëgg ki jamono yonantu bi di benn bi saxaabiyatu boo xam ne benn saxaabi yu moo ko bëggoon mu ñëw ci yonantu bi ne ko dama bëgg nga gaaral ma lan mooy àqi jëkkër ci jabar ak lan mooy àqi jabar ci jëkkëram yonantu bi wan ko ne ko daal ci gàttal ba mu ko ko tënkalee ba mu jeex mu ko koy tënkal ne ko sa jëkkër ji bu yaramam bi yëpp nekkoon dëtt nga commencé ci cat weeya ba ca cat kawar ga di ko mar taxul nga matal àq ya ca saasa la ne kon yonantu bi li ma lay xamal man duma ma sëy mukk taxut ñu ne yonantu bi wax ko dara kon bépp jigéen gu parewul ngir matal ak jëkkër te danaa ki ñëw ci euh, ponk ya juróom-ñaari kon sarta ya su boobaa maanaam euh, nga ne daal nga ne yaa ngay dem di sëy dangay yokk sa bopp bàkkaar dafay xaram ci yow bépp jigéen goo xam ne wóor na la boo amul jëkkër da nga moy te boo demee sëyi pare nga ngir matal àq ya wala da góor góorgóorlu la nga ca man nga def ko ca la ca des nga mottali kooko ñaan yàlla ak baalu àq kooka moom takk nga boo gisee guru guñ la may demal nga sëyi ndax yow boo sëyiwut dangay am ah, bàkkaar bépp jigéen boo xam ne nag boo sëyutoon tamit doom mooy te ki ngay sëyag yaakaaruloo ca doom te pare nga ngir matal àq ya wala lañ ca man danga ko ca def la ca des nga mottali kooko baalu àq te la ngay def sëy ba yaakaar nga ca doom kon demal nga sëy sopp nañ ko ci yow ndax nga bokk ki ñuy yokkee xeetu yonantu bi ci ñoom koo xam ne tamit boo sëyutoon doo am benn doom mooy te la ngay sëy yaakaaruloo ca doom su boobaa yow te te te woo ngir matal àq ya wala danga ca mànkil wala dana la yàqal sax boo ko matalee lenn ci say jaamu yàlla ay guddi léeg-léeg jigéen toll foo xam dootul bëggati jëkkër dafay bëgg rek wéet ak boromam ndax bu ko amee jëkkër dana ko yàqal lu bari te yaakaaratu doom ak yooya léeg-léeg jigéen toll ca kooka moom bu koy nar a yàqal ak jaamu yàllaam ci yenn ya wala mu nar a gàddu yenn àq ya te jëkkër ja te du dootul te parewut te dootul amati doom xam na ko te mën naa muñ kooka dañuy sib ci moom nag mu dem sëyi waaye jigéen goo xam ne mënuñoo ànd ak moom mu bokk mu ànd ak góor goo xam ne tamit munta ànd ak moom wala ji góor goo xam ne mën naa muñ donte la ànd Euh, maanaam la ci aju ca faj gaal ya ca aju ña ngi koy taxawee ca lañ ca juboo ñoo nga ñu ànd di suturaal leen seeni bopp ndax doomu aadama dafa bëgg sutura te ku sa sutura xawee ku nga dee loola tamit ñoom ñaar ku jigéen gu mel noonu dagan na ñi takk ko góor gu mel ni moom dana dagan tamit maanaam mu takk ko kon nag yow jigéen gi may déglu yaa gën a xam juróom ñi ma wax kan nga ci ndax ki war a sëyi nga wala déet walla la yow kay ku warta sëyi nga am wala ku ñu sopp ki nga wala ku ñu sib ki nga wala ku dagan ki nga yaa ko gën a xamal sa bopp ndax ni ma ko waxee woon maanaam ca euh, góor googa waaye boo bokkee ca war a sëyi ña demal nga sëyi boo gisee guru boo bokkee ci ñu sopp ñu demal nga sëyi boo gisee guru boo bokkee ci ñu sib ña demal nga sëyi boo gisee guru boo bokkee ci ñu ñu dagan ña tamit demal nga sëyi boo gisee guru ndax nga mucc ci rappelé ci hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waaye ndax nga mukki ci ñàkkam xëy ci nisaawukum xarsun lakum fa atu xarsakumu année shitum waaye ndax tamit nga mukki ci dañuy wax ne góor bu ne dafa am lu mu représenté jigéen gu ne am lu mu représenté maanaam tey euh, góor boo ko gisee dafa taxaw taxawaayu un jigéen boo gis taxaw taxawaayu zéro mu mel ni nag bul bàkku ne moo gën zéro déedéet moo ko fi bàyyi bul taxaw ne tamit zéro moo gën un ñoom ñaar kenn ku ne sans sa morom doo tekki dara muy tekki ne kon boo nekkee ëhëb kese amuloo benn zéro bu la wéttali yow mooy góor goo xam ne amuloo jabar la boobaa nag amul dara loo xam ne moom lañ wax ne moom nga mën a tekki ci li ñuy mën a wax waaye booy góor jigéen goo xam ne tamit mën ngaa denc gis ñu la bëgg